alhamdulillahi rabbil alamin di gërëm di ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaayu xalif bi Babacar Ba si kanamu njaboot bi mu ne di gërëm di ñaanal xalifa bi yàlla yàggal ko fi lool ànd ak wér di nuyu ay rakkam yi di nuyu ay rakkam di nuyu imam di nuyu imam di nuyu également xalif yi nga xam ne teew nañ si jotaay mu ne di nuyu xalifa yi fi teew yépp di nuyu bépp kilifa bu fi teew mu ne di nuyu bépp kilifa bu fi teew mu ne di nuyu njobooti maamu ndëri bi yépp mu ne di nuyu monsieur le maire mu ne di dalal mu gan yi fi teew yépp mu ne sañ a teew ci jotaay bi mu ne ngir wax ci turu président Macky Sall mu ne si ndigalu ministre de l'intérieur mu ne ñin ñooy délégué président de la république fii si Nioro représentant de chacun des ministres. mu ne di représenter ministre bu nek rek. rawatina ministre de l'intérieur bi nga xam mom moom lañ dénk mbirum diiné. mu ne rawatina nag ministre de l'intérieur bi nga xam mom moom lañ dénk mbiru diina. Motax ma ñew ci seeni tour. mu ne doo tax mu ñew ci tour seeni tour. fàttali li nga xam moy li ngeen ma jox. mu ne fàtte li nga xam mom ngeen ko jox. parce que yéen ma may soxna. mu ne yéen ko may soxna. ci kër Alaaji Samba Xoja Ba. mu ne rëccu dara nag ci li ngeen ko may soxna si li nga xam ne nag moo tax ma teew tey mu ne li tax nag mu teew fii tey si juróomeeli bi nga xam ne mu ne si juróomeeli yoon bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel ki nga xam ne mooy kilifa Mamour Ndari mu ne ñu koy jagleel kilifa Mamour Ndari mu nekk koo xam ne histoire politique ak sociale bu Sénégal am na lu mu si moom mu ne ki nga xam ne histoire politique ak sociale si Sénégal am na lu mu jàpp ci moom mu ne ak yeneen nit i njaboot yi nga xam ne ñoo nekk Poroxaan nekk Taïba Niassène nekk Kabakoto ñekk Gambi mu ne loolu yëpp buñ toogee di ko fàttali mu ne dinañ ko rafetlu dinañ sawero ñëw ci jotaay bii mu ne suba rek mu ngi doon déglu benn télévision mu ne ñu ne Sénégal dafa manqué ay référence manqué ay repères mu ne déedéet Sénégal am na ay référence am na ay repère mu ne li nga xam ne suñu maam yi loolu lañ fi liggéey buñ ci sukkandiku woon amul kenn ku ñuy gën ci àdduna mu ne lépp dafa dalul ci diina rafet di raf di rafet jikko te ñun dafa am loo xam ne yàlla def ñu ko dénk mooy lan la loi bi wax lan la décret bi wax kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk mbirum diine kilifa yi nga xam ne ñoo mànk ŋànk mbiru diine subhaanahu wa taala sant leen mu ne subhaanahu wa sant leen ne ñuy wax li nga xam ne mooy farata ak sunna ñuy wax li nga xam ne mooy farata ak sunna lépp jëm si defar te lépp jëm ci defar jikko yi ngir nit ñi di rafet mu ne nit ñi di rafet taxawaay taxawaay ak jëfin te loolu moo mën a yore mu ne te looloo mën a yore réew de mu ne loo tax muy rafet conférence bi nga xam ne moom ngeen def tey mu ne ngeen def ko ci islam mu nekk loo xam ne. mu ne ngeen mu nekk loo xam ne. dañ ko soxla ci biir Sénégal dañ ko soxla ci biir Sénégal. soxna soxla ko ci li wër Sénégal. soxla ko ci li wër adduna bi yëpp. bu ñuy wax sécurité. nekkul gendarmerie rek ak police lañ soxla. mu ne mbiru wér gu yaram. mu ne sécurité la. mu ne li nga xam ne moo am siin. kenn ñaanu yàlla mu am fii. te bu fi amee. jamono bu ñu nekk nii ci jamono bu ñu nekk nii Sénégal dina sonn mu ne ñu ngi jël nag ay matuwaay ba ba bu mu am mu ne li nga xam ne loolu lañ soxla si sécurité civile li jëm ci sapeur pompier soxla nañ ko moo tax ñu bëgg askan bi ku nekk duggal loxoom ci mbiru sécurité mu ne ñi nga xam ne ñooy def njomb tey ñu ngi suñu biir de. kilifa yi délégué de quartier yi. kilifa yi délégué de quartier yi. chef de village yi chef de village yi. borom njaboot yi xam nañ ñi nga xam ne ñooy def njombe yooyu. nañ toog di leen dénoncer nañ toog di leen yéebaane. bañ xam ne kii bokk bañ xam ne kii bokk na ci. mbokk la mbokk la ñu bañ koy dénoncer. mu ne ku du def kuy def la naka su noonu. ñu waxtaan ak moom. bu fekkee ne loolu bu nekkee ne loolu sottiwul. ñu teg la si yoon ñu teg si yoon. mu ne loolu mooy mën a defar dëkk bi de. mooy mën a defar Sénégal. bu fekkee nag ñu ngi toog. bu fekkee ne ñu ngi toog. di laam-laame di laam-laame. di nëpp nëppal di nëpp nëppal. am na yoo xam ne du fi gaaw a jóg de fan yii rek mu ne fan yii rek gis nañ ñoo xam ne gis nañ ñoo xam ne ragal nañ ay Niger ragal nañ ay Niger ñu leen yàgg wooye ay garabu garabu mu ne ñu koy ñu leen di yàgg wooye ay garabu garabu gis déggoon nañ leen gin gi neew déggoon nañ leen gin gi neew mu ne fan yi ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi fiy def kan moo ñëw wax préfet wala gendarmerie mu ne kan moo ñëw wax préfet wala gendarmerie te ñooñu ñu ngi fi te ñooñu ñu ngi fi te war nañu xool dox mu ne war nañu xool li ñu fiy dox lan la bu fekkee ne sax ay jàmm dox nañuy jàmm mu ne fekkee jàmm la ñuy dox sax nañ ko yëg nañ ko yëg dalal leen dalal leen gunge leen ci li ñuy dox gunge leen ci li ñuy dox fekkee leneen la ñu teg leen loxo génne leen dëkk bi mu ne loolu nag mooy suñu wareef mu ne looloo tax nag ñu yaakaar ne mu ne li nga xam ne moom la maire ñaan muy commissariat de police dana am insha allah loolu nag ba ba mu déggoon ne bu ma doon dégg ne ñi ngi doon daggat daggat fi nga xam ne foofu la ñu war a def mu ne ñu ngi doon daggat fi nga xam ne foofu la war a def policier police bi mu ne ñu woo ki nga xam ne moo yore mbiru suuf mu ñëw xoolal ñu ko gis nañ ne foofu kenn laalu ko mu ne ministre de l'intérieur jot na ne foofu kenn laalu ko mu ne incha allah police bi dinañ ko taxawal foofu mu ne institut bi comme ñoo fi toogal kilifa gi liñ fi jële tey yépp incha allah ko eggale ministre de mu xam ne famille Mamour Ndari Ba ak Maba Diakhou Ba mu ne liñ leen gën a war a jàppale biir Nioro nekk teg na bët. mu ne ku nekk teg na bët. li nga xam ne président de la république loolu def ci. mu ne li nga xam ne président de la république def na ko fii si Nioro. mu doon yéene def mu doon yéene def ko. te gëm naa ne leneen dina gën a mu ne te gëm na ne leneen dina ñëw am beneen xarkanam ba ñooro am beneen xarkanam mu ñaan également nit ñi dëkk bi nu muy soppeekoo dëkk bi nu muy soppeekoo mu ne jikko yi soppeeku ànd ak dëkk bi mu ne mu ngi leen di gërëm di leen sant mu ne li muy jeexale mooy di ñaan yàlla bi nga xam ne dara teewu ko dara ump ko pour que imaam Abdou Salam mu ne imaam Abdou Salam Ba. yàlla gën euh, yokk wér gu yaram mu ne yàlla may ko wér ak kattan. delloo ko ci askan bi delloo ko ci askan bi. muy jiite jumaa ji muy jiite jumaa ji. di jiite askan bi di ñaanal xalif di ñaanal xalifa bi. sëñ Babacar Ba yàlla yàggal ko suñu kanam. mu ne mu ngi leen di gërëm di leen sant.